asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu mbokk jullit yi mbokku chrétien yi mbokku taalibe yi rawatina képp kuy jaamu yàlla suñu borom subhanahu wa bay pap ña assistance sociale di njiital association ànd taxawuñu ñu di te yàlla rek tax tey jiiñu ñu ñëw fii ci diwaanu Ndar Géej ndar nag li nga xamante ni mooy sunu teewaay ci bërëb bii mooy xale bi nga xamante ni sunu borom atte na ñu yónnee woon ma vidéo 30 secondes ci xale bi nga xamante ni handicapé la wax dëgg yàlla moom ci boppam mënut a dox li mën mooy direeku te na muy direekoo dafa xaw metti lool dem na ba li nga xamante ni mooy toogukaayam bi nga xamante ni moom la ko suñu borom cërale ngir mu ciy toog dem na ba bu koy direeku dem na ba toogukaayam yooyu fees del ak ay góom ndax direeku bu metti bi nga xamante ne mu ngi koy def te lenn waralu ko lu dul ñàkk puus-puus daañu dem nag ci biir kër gi xool xale bi daañu dem ci biir kër gi xool xale bi xale bi ana feebar bi kañ la ko dal da koo judduwaale xale bi nan lay def ba góom yooyu noonu noonu fekk si ko ci jëmmam jooju noonu xale bi lan la ñàkk ba tax munul ta xale bi lan la ñàkk ba tax loolu xaw ko sanal loolee incha allah ñu ngi si tàllal loxo nag képp kuy jaamu yàlla fii ci diwaanu Ndar dafa sori xam naa pour ñu ñëw fi du bari xamante ni am nga yërmande ci tur tànk bii jaayanteel ak yàlla loo am mu bëri mu néew jàppale ko yaayam ju tedd ji ndax am doom mu nekk handicap dafa metti rawatina xale bi ni nga xamante ni noonu lay doxee sunu borom xañ ko ab dox ba képp koo xamante ni seetaan na vidéo bi la sa xol tooy ñu ngi ja ñu ngi jaajëfal ñi nga xamante ni ñoom ñoo ñu jàppale ci cas bi ba jënd sax li nga xamante ni moom moo di pousse-pousse am na benn soxna boo xam ni soixante-dix mille francs la ñu yónnee am koo xamante ni jaayante na gars yi jaayanteeg yàlla te yàlla rek tax nañu ànd ci biir kër gi ki nga xamante ni moom mooy sëñ Fallou wàcce li nga xamante ni moom moo di euh, fauteuil lant boobu noonu waa Saint-Louis yëpp ñu ngi leen di woo ci yéen ngeen ñëw jàppale soxna si ak doomam jile ndax xale bi kat daanaka bu amee juróomi at ci la toll waaye nag wax dëgg yàlla aw dundi na metti na lool war a màgg munoo dox wara am soxna munoo dox nga génn ci biti say morom di dox day ndeysaan lii ku ni mettiwul rek dala dalul ñu ànd ci biir taalibe yi képp kuy jaamu yàlla suñu borom Baye Pape ñaa nekk fii ci diwaanu Ndar ànd ak waa cas urgence sur le terrain ànd ak ñi nga xamante ni ñoo ñuy jàppale ci liggéey bi ba lépp di yem. fii ñu nekk tey ci diwaanu Ndar wax dëgg yàlla metti na lool nekk tànk fi nga xamante ni fa nga war a tolloo ci dawal vélo mënuloo ko fi nga tollee ci war a ànd ak say morom mënuloo ko lépp lu ab xale di def. mënuloo ko def mu nekk lu metti moom tu tànk bi ñu toggal ku baax noo tudd. mu laa sa papa nu mu tudd. yow noo euh, sa yaay nu tudd. Khady. fi ni looy def dangay jàng looy jàng. i. dégg ngeen ko fi mu tàmbalee muy jàng li nga xamante ni moo di fer it ji képp koo xamante ni musulman nga xam nga ni jàng sa diine war na la moom suñ borom teg ko nag nattu ñu ñëw ci natt boobule lan moo lay metti sa biir sa biir bi ak lan kese kese mën ngaa dox lu tax mënoo dox lan moo tax dox. dara. lan moo tax mënoo dox. mënuma dox. bëgg nga dox. so gisé sa morom yi di dox lan ngay yek dara. metti na dé metti na lol lesan dégg ngeen ko dégg ngeen ko dégg ngeen ko dégg ngeen ko ndeysaan mi ngi wax tey lan nga bëgg ñu defal lako pus pus puus nga bëgg. nan ngay doxee. da ngay ram wala. nan ngay doxé do ak nii di dem. da ngay ram di dem. ram bobu ngay ram, di dem lan la lan la def ci sa yaram. fay dag day dag lan motax muy dag ram bi may ram ram bi ngay ram motax muy dag bëgg génn ci ram bi. xam naa ne yéen it bu ngeen ko seetaanee seen xol dina tooy dégg ngeen ko nee na day raam ba yaram bi di dagg bëgguma rek ñu yem ci fauteuil roulant bii ñu ko indil waaye bëgg naa ñu gate ko sax moom pourquoi pas yéen ñi may seetaan mun leen ñu ci jàppale pour pourquoi mënuñoo mottale xale bi li ko manqué ñi nga xamante ni ñoo dëkk ndar lan moo xale bi ñu jël ko dugal ko ci internat yi maa ngi woo képp koo xamante ni suñu borom atte na nga mën ñu jàppale ci tout tànk bi ngir mu jàng ci internat école bu baax boo xamante ni dana fa kenn du ko fa tooñ kenn du ko fa toroxal kenn du ko fa def lenn lu metti loolu laa mooy li nga xamante ni bëgg naa ko ci xale bi ma koy sàkku ci yéen ñëpp ngeen jaayanteeg yàlla Aliou dañuy ànd xool tout tànk bi moom buy raam wala buy dox mbaa muy direeku ana moom nan la koy defee ngir ñu mën a xam tey buñ ko doon dimbali ci wàllu faj bi fan la ñu mën a jaar ngir mu mën a retrouver waat santé normal am bàyyi ginnaaw li nga xamante ni moom nga doon ñaan yàlla euh, muy puus puus may am nga ko tey lan nga ñuy wax. damay bëgg a dox. ndeysaan dégg ngeen ko am na puus puus waaye neen dafa bëgg a dox ndeysaan euh, mbaa kontaan nga lan nga bëggaat wax ma bëggaat. dara. bëggaatoo dara. Euh, Muniru bëgg naa xool sa ah bii la sumil kawas yi ma xol nañu xool kaay leen ngeen xool lii nga xamante ni moo dal xale bi lan moo ko ko yóbbee mooy ñàkk gi nga xamante ni sunu borom xañ na ko ab dox doxinam mett lool muy raam raam bi nga xamante ni moom lay raam moom xale bi moom moo ko watat ba yóbbu ñaari baaraamu tànk ñetti baaraamu tànkam bi ci raam bi nga xamante ni mi ngi koy raam état Sénégal autorité Sénégal képp kuy doomu aadama ami internet bu association taxawu ñu wéré di képp ku am yërmande képp koo xamante ni def te yàlla tax moo la ñor noo ngi sàkku ci yow nga jàppale ñu ci xale bii balaa yàgg dara balaa muy mat sax juróomi fan ñu ñëw fi jël ko yóbbu ko ci ab internat fayal ko gateem ko gateel ko li des ci ak dundam ndax xam ngeen lii metti na bi ma ko laajee léegi bi ma ko joxee li nga xamante ni moom moo di fauteuil roulant bi lan nga bëgg mu ni damaa bëgg a dox kon nañu doon ay tankam fi ko dox wara fété ñu fété ko fa ngir mu mëna dox ngir mu baña sentir ni sax mom sun borom tek na ko bu metti bi nañu and dem xol yaayam bëgg nga ma xam pap Niang tudd. pap mba tay nek nga sama xarit lepp lo bëggati nak mako wax waxal légui lan nga bëgg tay ma defal lako ko. so so so ko bëgge so ko bëgge rek dig mako wax. léegi man maa lay man maa lay utal bëgg-bëgg ñaata nga bëgg tey ci xaalis. 5000. 5000 dégg ngeen ko dama ko bëgg béggal tey nee na 5000 la bëgg damay compter ay 5000 ba mu mat fukk ma jël ko teg ko ci loxo mu niiru te jëmmi yàlla rek tax di sàkku ci yéen ngeen fekk ma ci moom ngir ñu sauver ko ngir ñu jàppale ko te yàlla tax mu niiru lii yaay borom. xam nga lii ñaata la benn bi ñaata la. xaw benn bi 10 000 la. beneen 10 000. beneen 10 000. beneen beneen 10 000. beneen 10 000. maa ngi lay laaj lan nga ciy def. dama ci jëndee ay yére. ak lan. ak tuwe. ak lan. lan ngay jox sa yaay nag. mu jëndee ma ci ay yi. mu jëndee la ci ay kawas. xanaa di nga ci jënd benn bouteille boisson sax ek saa yekkun an taxaw di TV di am mbégte soxna si na nga def. maa fi. Muniru Salan la. sama doom la. lan nga ñu mën wax ci Muniru sama doom la man maa ko jur bi mu juddoo ba léegi nii la mel. hôpital fan la entré won yàgg fa lool ñu faj boobu ba léegi lay yenn saa yi nag day am jafe-jafe tànk bi day am dagg-dagg dañ koy faj ba sonn du wér baaraam bi day mujjee wadd xootu taati tamit noonu dama koy kuus laa koy kuus kuusu toile laay jël di ko kuusee ndax aw ma moyen di jënd kuusu azeté ay morsa laay jël di ko ko kuusee yenn saa yi xam naa tàngaay bi daf kay jàpp xootu taat day am ay góom ndax tàngaay bi waaw. moom am na mag. am na mag waa magam nii la magam déedéet. am na rak. am na rak waaw. rakam nii la mel. déedéet. Euh, nan nga koy dundee en tant que yaay ci say doom kenn kenn melul nii moom sunu borom ñëw wàcce ko nattu bi tey lan mooy sa bëgg-bëgg ci moom. xanaa ku ma si dimbale rek ndax dama xam ne yàlla moo ma ko teg ndax jëkk naa am doom te melul noonu moom tamit bi ma ko amee mu mel nii doon naa ragal sax amaat doom pour bañ mu mel nii waaye ma gëm yàlla rek bi ma amaatee doom tamit melul nii. ma bëgg ku ma si jàppale rek ba muy dox ndax bu ma gisee ay moromam di dox wala ñi mu maaseel di dem ak di dikk man damay bëgg moom mu dem doxe looloo taxoon ma gis sa numéro gis ngeen def yu baax yooyu ma ne xaaral ma woo la ba xam di ma si mën a dimbali kontaan naa lool bu baax nag ndax bi nga ma dimbalee jox ma puus puus bi xam ne dina bare yoo xamante ne dina ko wàññi si moom maanaam dagg-daggu tànk yeeg ak fu moromam yi jëm mu bëgg fa jëm tamit du ko mën yenn saa yi day bëgg génn si mbedd mi waaye duma ko nangoo bàyyi mu génn ndax su génnee day tilim wala yére yu muy sal di xotteeku raam bi mi raam day tax yére bu mu daan sol day xotteeku moo tax kontaan naa daal bu baax a baax. allahuma amin nee na kontaan na yal nañu yàlla fay Adama Seen nag moom amul benn kaa boo xamante ni dinañ ci dem te tuurul ay xéwal bëgg ñoo xam tey Adama Seen mi taxaw nii tey Adama Seen tey sama xol dafa toy Adama demoon nañ ci cas yu bari mag yow ñooy ànd te cas buñ ci dem nga tuur ay xéwal Adama ni nga gisee xale bi di dox num la def ndeysaan sëñ Fallou Galas sëñ Fallou ni nga gisee xale bi di dox Adama nag yi may bëgg a yóbbu <laughs> ni nga gisee xale bi di dox lan la la def. sant yàlla rek ñu ngi sant yàlla bu di julli ci sang bi nuyu ñëpp di gërëm ñëpp wante ànd ak yow day jàngale ta aduna ñëpp dañoo wara jang jang, ci def lu bax ndax xalé bima ma ko fekke muy jang alxuraan rek man daam luma yek sama yaram xamni ni tey ngi am ay cëram te jéemul xam dinem jéemul xam ëlëk li ko war a jariñ def mu manki ay cër ta te mu ngi nap nabi pour xam diineem lan ak lan la waye nak dañuy sante yalla bam la xamaleek ñom may wax yaay mu gëna sante yalla xamni xam ni Baye ci képp ku mu dem ak cant rek après moo ciy topp kon yàlla na ko suñu borom defal lu kawe njortam suñu borom mën na ko te gis nañ sa yéene man damay gis li ngay def ci malaat yi doo ko def sax sa jëmm wallahi fu ñu dem da nga leen di teral génne sa xaalis def ci coono bi mais lépp na ak sant la. si vidéo yi di la wax ni kaay ñu ànd liggéeyal yàlla te yàlla rek tax ndax àdduna di ci lépp looy yëngu képp ku mën di doon nag sa intérêt moo tax nga ciy yëngu. waaye intérêt yi daa wuute ñun nag intérêt bi ñuy wut mooy daje ngërëmul yàlla suñu borom ndax jooju rek moo jarawut jërëjëf Baye Pape ndax jooju rek moo jarawut wala leen ma Baye Paté wala Baye Wuri ñoom ñu ñëw ndax euh, liggéey bi ba ma ko dooree ba tey sama ñaari malaaka yi fu ma mënti dem mag ñoom ñooy ànd kuma gis gis leen ku gis gis leen wax dëgg yàlla lii lépp nag nenyukai baho ci dara ni ñu koy baaxoo di waxee bu leen ñu sant sant leen yàlla bu leen ñu gërëm gërëm leen yàlla li ñuy liggéey dañoo bëgg bu ñu wàccee fekk ko ci suñu biiri kër te jëm yàlla rek tax te nit la muy dundee ëllëg yomal xiyaam fii la koy liggéey ci kaw ci kaw suuf sama doom baay ba Fadel ñang daan faral di wax naan bàq bi tooy na te ku ji di nga góob te muniru muniru muniru mi ah kaa bu nekk dem naa ci de waaye muniru mi muniru mi li ko dal metti na te yaayam ji it soxla na ndimbal incha allahu rabbul alamin am naa yaakaar ni bis ni ki tey dootuñu ko couche ak couche toile bis ni tey naam gasoil bi ñuy delloo dakaar la ñu yor waaye dinañ wàcc ci pharmacie bi jëndal ko ay couche mu di ko couche saa bu jeexee buñ ñu woowee donte ni sunu dépense lañ yor dinañ ko ko jox ndax fuñ ko lijjantee yàlla rek moo ñu koy jox bay Wuri en tant que membre ci association taxawuñu di sa teewaay fii ak cas bi nga xamante ni mooy Muniru nekk xale nga gis ni muy doxee en tant que père de famille wuri ana lan nga yëg tey ci xale bi toog. waaw Baye Pape euh, est-ce waaw di wax ni sénégalais yi comme ni ngeen ko gisee rek ku ko gis ku nekk rek sa xol dina tooy di nga xalaat ni am nga njaboot. dinga xalaat ni am nga ay doom te dinga xalaat ni dund gi li ci des muccagoo yàlla rek a xam moo tax si jamono bu nekk rek ñuy woo jaamkatu yàlla yi ñuy woo borom yërmande yi ñi nga xam ne def te yàlla tax rek moo leen ñor ñu ngi leen di woo ci xale bii nga xamante ni nii tey avenir u la xale bu ndaw amaana li ko dal mënugu ko yëg fekk màggul ba toll ci yenn tolluwaay yi bu demee ba xam ne fii mu toll mun naa dimbali yaayam ak baayam foofu lay amee lu ko metti ñuy woo sénégalais nag képp ku ci mën a jàpp te yàlla rek tax gis ngeen utal nañ ko puus-puus bi ko président bi laajee daf ko ne dox laa bëgg yéen ñi nga xam ne yéenay defkatu lu baax yi ñu ngi leen di woo ci tout tànk bii képp ku ñu ci mën a dimbali ba ñu génnee ko réew mii même bu dee biti réew ñu yóbbu ko fa sax jëm ko taxaw ba mu jotaat ci ay doxam ba bu ñëwee mën a dox bu màggee mën a dimbali ay waajuram. Euh, ki nga xamante ni moom la ñuy jàkkaarlool nii nag moom papa la ci xale bi ndax moom mook papaam ñoo bokk benn deret ku baax en tant que waajur tey xale bi di mu Mounirou ana lan nga ñu mën a wax ci moom. salaamaaleykum wa rahmatullah ñu ngi leen di ziar ba alhamdulilah macha allah. waaw wax dëgg yàlla lii nga xamante ni moom moo ko dal doon xam ne rek borom bi si boppam moom moo nu ko teg te borom bi ñaaree ki mu bëgg rek lay teg yenn nattu yi bi mu juddoo wax dëgg yàlla ba léegi nii la mel wax dëgg yàlla jéem nañ si lu ne def nañ si lu ne fépp nga xamante ni yaakaar nañ ni buñ fa demee dana jéem a fajur rek jéem nañ fa dem wax dëgg yàlla waaye boobu ba léegi xëy na léegi la nu yàlla boole ak yéen waaye comme yéen jël ngeen décision pour jàppale ko bu baax baax yàlla na leen yàlla jàppale bu baax a baax a baax si lii nga xamante ni moom ngeen bëbët yaayam jii nga xamante ni moom moo taxaw nii nag wax dëgg yàlla sonn na si lool lool lool te jàmbaar la Jambar la wax deug yalla du nangou mu tilim du nangou mu def dara wax deug yalla sonna na si lol, lol, lol, lol, lol. li nga xamanteni mom ngeen bëbët rek yalla na ci si yàlla jàppale bu baakha baakha baakha a baax ay wa am na fu mu tambale waye amul fu mu yem di len gërem ni ma len gërem nak sant bu melni nii yaakaar naa amul dafa na won sax li amul ci ngi len di sant bu baakha baax di len gërem sant bo xani amna fu mu waye fu mu e di sant yaayam yaayam mi limu daj ci mom ben ben bakkan mënu ko xam ndax bobbi bi ba mu juddoo daanaka nii bopp bi la toll won defa naa won man du dund muk muk ba loosu attan bop bi loosu yaakaaroon daa attan bop bi motax bi mu ka yaayam top di diko top to bam mu toll nii naka mag tuuti rek nee bi mako ko tabaxal ni ko mom mom, mom ne bi date ci lay jànge ma dal tabax ne bi mu di ci jànge eh, dakar naan daal lu mel ni amul ci di maa ngi leen di sant di leen gërëm di gërëm waa kër gi yëpp mboolem ñoo xam ne ko séq maa ngi leen di gërëm di leen sant yéen nag amu amu awma seen fay mënumaa mënumaa dem daal <laughs> ndeysaan dégg nañ ko sunu bàyyi kàddu yooyu la yëkkati yal nañu yàlla gërëm daal kàddu yu mujj ci ñi nga xamante ni ñoom la ñuy tàllal micro di leen laaj ci wàllu ki nga xamante ni mooy Muniru kaa bii nag dama koy jël jébbal ko waa Greensboro ni leen seen kaala soxna nday faatu Diop ak ñamu nekkal foofu ca Greensboro kaa bi yéen laa ko ndayale di ci woo képp kuy doomu aadama nag ndax dama bëgg sax mu génn senegal dem bitim réew ngir ñu faj ko ba mu yëgaat ak doxam bi ma ko njëkkee laaj loo bëgg dani puus puus laa bëgg bi ñu ko tegee ci puus puus naam am na ko ndekete bëgg-bëggam des na ma yaakaar ni bëgg-bëggam jeex na ma laaj ko loo bëgg mu ni ma dox laa bëgg kon ñi nga xamanteni ñoy wa double AATGW social ñi nga xamanteni ñomay jappalé ci cas yi nga xamanteni ñom lay dem di fekk sur le terrain ba mbir yi di yomb ma ngi leen di xaar xam ngeen fi ngeen daan jaar Wave la Orange Money la Ria la MoneyGram la Western Union la turu Cheikh nya la 77 190 77 67 ma ngi leen di ñaan ngir jëmm yalla Bala weru koor gee jeex yal nañ am solution ci ki nga xamante ni moo Muniru fii ci diwaanu Ndar ànd ak sunu caméraman bu rafet bii di Seydina Aline TV ànd ak ki nga xamante ni mooy sunu chauffeur bu ñu sonnee moo ñuy wétali muy Matar Faye ànd ak ki nga ni borom xolu jamaa bi di ki nga xamante ni mooy Adama Sène bu la xoolee sax xaw am yërmande tuuti ci yow dootul mën wax ndax ay ronkoñam ak bay suma mi nga xamante ni suma ñaari malaaka yi ànd ak ki nga xamante ni tey moom mooy Serigne Fallou ñu ñëw fii ci diwaanu Ndar démb lañ jóge dakaar nekk ci aajoy jaami yàlla yi nekk ci yittey jaam yàlla yi ba sunuy kër sax xamuñu lan lañ fa bàyyi sunuy coono sunuy guddeeg sunuy bëccëg sunu bàmmeel moo nu ñor ëllëg yomal xiyaam àjjana lañ bëgg a yeewoo yàlla nañ fa bokk yeewoo ñun ñëpp association taxawu ñu wéradi la solution des malades mentaux jërë jëf Thank you.